الجنات رسول سفي في البرايا محمد محمد المختار لا خلق مثله لا ملائكة قد والله عباد بشير عبيد والأزاق قبل محمد لقد جاني في البرزاق النبي الورى على كل مخلوق به الخلق مديه رسول الله لخاتم النبي يهوى لي ويطرد علم سلة الأبرار والبر والملا بأن المخفى سيد الخلق مفرد إذا ما مدعت المصطفى فجأة أقول jërëjëf Matar Samb oustaz euh, ziar naa la flash naa ba pare toogaat de. waaw flash nga ba noppi de toogaat ndax ñu ne ñoo ne la toogal. waaw <laughs> toogal wéttali ñu tuuti rek. mu ngoog. kii moom euh, ak euh, samedi bu mujj bi. Mhm. yóbbalu bés bi defe naa yaa ngi ciy joxe njëriñ yu am solo. dëgg la. boo ci mënoon xuusaat tuuti rek après ñu soog a ñëw. ci waxtaan bi ñu cofaat tuuti daal. waaw waaw baax na loolu dina ci am solo. <laughs> Eh, nga baal ma ma nuyu Arona Ndour. mi nga xam ne nii nii mën naa ne moo nekk ci logistique bi. lu mm-hmm. noon ngeen koy tuddee waaw ah, Arona Ndour taalibe baaba Babacar si bu mag boobu. Mm-hmm. di bàyyi faalu Serigne Babacar si. mu la mu tedd moomule. Mm-hmm. Eh, Serigne Babacar si dafay ku neex a bëgg. ndax da ngay dégg sax jàngkat bi di wax naan. xale yi juddu ci ginnaaw mbay xamuñu mbay te moom la ñu gëm koo ci waxal mooy waayam euh, daanaka ñi ko gisul ñoom ñoo ko gën a bëgg maa ngi ciy nuyu Arona moomu euh, di ci nuyu itam papa bala Guèye euh, di correspondant bi ñu nekkal ca Touba moom taalibe Serigne Babacar si la waaye noonu la soppee Serigne Touba di nuyu daal taalibe cheikh yi ak borom daraa ji moom itam maa ngi koy nuyu moom itam taalibe cheikh la borom daraa ji kan jàpp ne moom laay wax borom daraa ji fii ci RFM taalibe Cheikh la. Assane. Ah? Alaaji Assane Guèye mooy borom daraaji mooy borom daraaji <laughs> yaa ko waxal sa bopp <laughs> bu fekkee loolu est-ce que du diffamation euh, loolu hmm. diffamation la de. non non boobu article quatre-vingt. non boobu diffamation. code pénal waaw suba doo wuy ji. parce que borom daraa ji laa wax man tudduma kenn. yow nga ne El Hadj léegi xëy na man naa bu ci problème day am rek. Mm-hmm. loolu moom nga nga kii ko daal. bu ma nee borom kilote bi. kilote <laughs> boo ñemee. <laughs> Matar kan ah Matar dañ koy wax. Matar kan la. <laughs> Babacar. Ah. Ah, yaa ko wax de man daal tudduma fi turu kenn. Matar ah man kay Matar laa jottali. waaw. moom moom. tudd fi turu kenn. xam na gaay borom bolok yi. bolog waaw. kii solul kii ah. Makumba sa soppe. <laughs> ma ah, Makumba ay bolog lay maye. borom géngin xew day dóor bologam rek foog ni am na valeur fekk fekk wax la boo moytu moom moom yab naa ko. ah kumba ma ah, Makumba Makumba nag moom man maa man maay man maa man maay kii woo moom. Hmm. Makumba moom man maa koy défense défendre moom. waaw waaw moom ku ko wax dara moom damay damay jóg mbëkk la. <laughs> waaw annonce annonce bi mu dóor ci kii bi nag neex na émission bi. ah yii yóbbalu jullit bi. loolu boobu moom rek moo ko man loolu loolu loolu loolu yëfam la. waaw eh, te gis nga ndeysaan loolu sax euh, fi la suñu kóllëre tàmbalee. Mhm. mën naa profité foofu sax waxaale ko. Mhm. Euh, ndax sama kóllëre ak Makumba. Mhm. mi ngi tàmbalee RFM Mbacke. Eh, bi may am ak moom kóllëre boobu mësuñoo gisee. booba mi ngi fii Dakar man maa nga Mbacke. Euh, ma di ko déglu avant may ñëw RFM Mbacké euh, ci atum 2015 yàlla def ma kumba doonoon doonoon sama doonoon ku ma neex. Mm-hmm. doonoon koo xam dama ko doon bàyyi xel. bi ma ñëwee RFM Mbacké miinante wuñ parce que moom mi ngi Dakar. Mm-hmm. bi ma bëggee def annonce boo xam ne parce que dama ne man annonce professionnelle laa bëgg. ku ñu ku ñu xam ku ñu bàyyi xel ku am kàddu ku am fasaa. man ma koo defal. Euh, am na benn journaliste boo xam ne moom laa njëkkoone a di mm-hmm. boobu mi ngi ci kër gi journaliste boobu. ba ma ko woowee wax ko wax ko waxaat waxaat euh, dafa mujj ne ma sëñ bi aw ma jot seetal keneen. Mhm. booba xamuma. Mhm. waaye noonu la ma mujj gàntale. Euh, dem nañ ba xamante ndeysaan mu xaw ci am kersa euh, moo tax duñ ko mën a tudd <laughs> ndax mhm. sutura waaye loolu mu mujjee wax sëñ bi aw ma jot seetal keneen bi ma woowee Makumba mu def ko avec plaisir. moom ma ak El Hadj Assane Gueye ñoo ma defal ay services yu am solo te booba xamuñu ma. mosuñu maa gis. Alaaji Asan Gay aussi ma doon organiser benn journée bu ma doon def CM Gaynde Fatma bu Mbàkke booba xamante wuñ yàlla xam na ma woo ko téléphone ko dama soxloon benn voix off voix off lañ koy tudde xaw ma benn benn benn kii mm-hmm. benn appel waaw benn publicité mm-hmm. Euh, Alaaji Asan ne ma yónnee ma texte bi léegi ma defal la ko léegi ma ne ko ah, luñ ciy barkeloo mu ne ma boo ko waxaat de mm-hmm. yàlla xam na ne mu defal ma ko gratuite chaque année mu di ma ko defal te boobu musuñoo gisee mm-hmm. boobu laay soog a dem RFM Mbàkke mm-hmm. euh, te wax dëgg yàlla service boobu rendre nañ ma ko te sax xamante mu muy Alaaji Asan Géey ak ma euh, Makumba Bey ñu leen di gërëm bu baax di leen sant loolu nag mënuñu koo ñàkk wax parce que dafa yàgg 2015 la woon ba léegi Euh, kon kon annonce bi mu def euh, daf la ko defaral fii fekk yaa ngi RFM Mbacke. déedéet bi ma nekkee RFM Mbacke émission ba mu fa doon def deux émissions yi ma doon présenté. Mm. muy vendredi ak dimanche. ñaari émission yëpp moo defoon annonce yi. Mm. annonce yi mi ngi samay archives. ah bokkul yóbbalu jullit bi may def fii Dakar mm. moom laa doon def RFM Mbacke vendredi. yóbbalu jullit la tuddoon wala. yóbbalu jullit ah, bi même scénarique bi ngay dégg nii. même concept bi lépp. ah Ousseyn kon da club bu mag recruter la. loolu loolu moo tax moo tax ñu ñëw dakaar hmm. suñu ñëw Dakar ndeysaan kilifa yu bari am nañ ca taxawaay. Eh, mais li ci li ci li ci li ci li ci gën a am solo. Hmm. Eh, bi ma nekkee RFM Mbacké doon présenté émission yóbbalu jullit. Hmm. Eh, jamono jooju Mouhamed Sow moo doon chef de station bu RFM Mbacké. mi ngi fii dakaar léegi. ñu doon présenté émission phare émission bi ëppoon ñu koy déglu ca région Diourbel. yàlla xam na ne wallaahi lancé man maa ko doon présenté. mooy émission yóbbu du jullit. vendredi dix neuf vingt et la doon doon. Mm-hmm. mooy heure ba heure bi Sidaat di def fee émission. Mm-hmm. Euh, xaw ma boobu muy def ci ngoon gi di ci invité ay kilifa. ma ko noonu def RFM Mbàkke sondage bu ñu def. Mm-hmm. man maay doon première. durant 2015 2016 2017. 2018 ba ci 2019 bi ma jugee RFM Mbàkke. sama émission mooy otop biñ demee ba ci boori 2000. 19 2018 2019 ñu ne dafa am benn émission bu mag buy am Dakar mhm. boo xam ne Sidaat moo koy présenté 19 heures 21 heures lay doon mhm. te kilifa yi bëgg nañ muy jàll fii bi ma ko Mouhamed Sodio waxee ma ne ko loolu mbégte laa ci àndal ci saasa rek dama ne ko vendredi bii di ñëw na Sidaat jàll waaye damay ñaan balaa booba nañ ma defal annonce boo xam ne dañ koy annoncer ci semaine bi yëpp ñu xam ne émission bi toxal nañ ko vendredi ci suba onze heures dix heures mhm. ci laa woowaat ma Kumba Bay mhm. ne ko beneen annonce laa bëgg parce que émission bi dañoo sensé heure bi ci la ma ko defal. Mhm. yaa ngi comprendre. comprendre waaw kay. léegi nag kon kóllëre yi foofu la commencé. ñu dem di ma euh, vendredi ci suba di ko présenté ba mu yàgg ñu ñu ñu ñu def ko alxames ci ngoon dix neuf heures vingt et une parce que nit ñi ñoo doon revendiquer. Ah. di wax na sëñ Mamour émission am heure boobu lañ ko tàmm. 19 heures 21 heures bu ngeen ko defee ci ak suba impact bi mu war a am ci ñun du ko am parce que dootuñu xàmmee heure bi mhm. te heure boobu heure xëy la ñuy yeewooguñ nangam ak nàngam mhm. mais bu dee ngoon gi ñuy wàcc nekk ci oto yi di ko déglu ñi ci yoon yi mhm. ñi ci kër yi ñëpp dañuy am temps pour déglu ko Mouhamed Sow Diop ci compréhensif am mu delloowaat ko sodi ci ngoon comme mënu koo delloowaat vendredi parce que am na émission phare bu fa xas ba ni 23 heures 2 heures di matin maa koy présenté yóbbalu bis bi. Hmm. yóbbalu julli daawul joxe ay njariñ. waaw moom waxtaanu diine la woon ak actualité bii. Hmm. ah actualité boobu foofu nga ko tàmbalee foofu laa ko tàmbalee mais li ci sensé woon mooy booba amutoon journaliste buy toog di ma laaj. Ah. man maay wax li jot a xew ci réew mi wax ci samay jàngat. Hmm. journaliste bu toog di ma laaj ci actualité bi fii la commencé Dakar te Pape Balla Gueye moom moo ko sos comme moom bi ma koy def dakaar bi ma koy def euh, Mbacke fekkoon na ko parce que man ak Pape Balla ñoo demandoo RFM Mbacke hmm. 2015 macha allah Pape Balla dafa ñëw ci semaine bi semaine bi ci topp ma ñëw RFM Mbacke hmm. loolu moo tax suñu borom boole woon ñu daan nañu jóge chaque jour RFM Mbàkke dox ba jumaay Tuuba ñu doxaan ñëw pour yëngal yaram bi mu doonoon sama complice dem ba ñëpp xamoon ko ba ku ci ku ma ciy laaj Pape Balla doo tudd turam sa xarit bi nga may wax Pape Balla itam ku koy wax ci man sa xarit bi la koy wax nga xam ne koo ci dem ci moroom doo tudd turam loolu moo indi suñu kóllëre ba fii RFM Dakar euh, moo tax actualité bi benn suur mu def flash ba pare euh, ma ne ko ñu tooñante tuuti mu dugg rek laaj waajuñu ko doonu lu ñu programme wala lu ñu orchestré de. Mhm. ay dañuy gi nañ def actualité ñu mu jékki-jékki rek laaj ma dara ci réew mi. Mhm. ma wax ci sama xalaat mu dugal beneen question affaire bi neex. Mhm. bis ba ca àjjuma ja ca topp mu làbbaliwaat ko ñu defaat ko defaat ko defaat ko ba euh, tabaarikallaahu ñi nga xam ne noonu la demee euh, ba ñu fi jaar ñëpp jaar fi yow itam nga def ci tuus bu am solo euh, ku ñëw rek moom itam def ci liggéey bu am solo noonu daal la émission yóbbalu jullit tëddee Euh, ba agsi fii ci dakaar mais nag 2015 la woon kon maa ngi bëgg a yàgg ci kër gi. Ah, yaakaar naa 2015 2023 mu gën a yàgg. mu ngoog mhm. vingt cinq lañ fiy def 10 ans. Mhm. bu ci yàlla andee. Euh, kon boobu yaakaar naa war nañoo bokk ci cadre kër gi. waaw waaw foo di fukki at moom wala di fa bëgg a def fukki at moom. Mhm. yaakaar naa lu ñu fay séddale kenn warul ci ëppale. ndax comme ginaar waxaale sa soxla. waaw mais man man kay li may xalaat mooy sa sa auditeur yi aussi oustaz. ñooñu aussi war nañ leen bàyyi xel fexe daal ba émission bi peut-être heure bi muy daw fii mhm. Dakar ñu mhm. synchroniser ko ak RFM Mbacké muy daw heure boobu dëgg la wax nga sax lu am solo loo xam ne euh, revendication yu dul jee xam na ci mhm. mais man du ma du ma jox kenn toor du ma jox direction Dakar toor du ma jox direction Mbacké toor donte am na ay ay nit Jóob RFM yi yaakaar naa ne yëg na ko ay ay mbooloo yoo xam ne mas nañoo def mars jóge Touba ak Mbacke def mars yëkkati seen i pancarte ba RFM Mbacke. Mm-hmm. di revendiquer émission yóbbalu jël bi sëñ Mamadou di def vendredi dañoo bëgg muy jàll RFM Mbacke. mais xam nga Pape la gay fa la nekk. waaye moom it dafa am ay njiit. njiit yooyu itam dañoo am ay njiit te programme it doonul loo xam ne xëy na. Mm-hmm. dama jàpp ci sama xalaat bu gàtt doo xëy rek coppati fii teg fee wala ndàngam xëy na dañ koy organiser mën naa am na kilifa yi xëy na ñu ciy gën a waxtaan. ngir gën a améliorer fexe ba waa RFM Mbacké di jot émission yóbbalu jëli parce que demande sociale la euh, heureusement émission bi ñuy wax nii nii tey ci samedi bi ñu mi ngi jàll Touba ah, waa RFM Mbacké fi mu toll tamit ñu ngi may déglu mhm. mais vendredi bi dafa beneen émission bu fay daw mhm. xëy na nag loolu moo tax mënaguñ koo am RFM Mbacké Pape Balla Gueye mi ngi ciy def liggéey bu am solo mhm. Alaaji Assane Gueye mi ngi ciy def liggéey bu am solo Euh, direction bi ñoom Babacar ñoom Makumba kenn ku nekk yaa ngi ciy def liggéey bu am solo xëy na nag euh, bu bu bu bu bu yéwénee rek bu jàppandee rek yaakaar naa waa Mbàkke dinañ ko mën di amaat euh, parce que nag foofu mooy suñu baas mooy suñu base mooy suñu carte général foofa la ñu xamee foofa la ñu découvrir foofa la ñu def suñu liggéey ba tax tey ndakaaru xam ñu ba indi ñu ba indi ñu Dakar Euh, première màggal Touba 2017 la Ndiagandour ñëw Ndiagandour mooy directeur bu télévision Futurs média may profité di ko nuyu au passage moom El Hadj Ndiagandour euh, njaga ku baax la njaga ku ku ku bëggub liggéey la Ndiagandour benn ité la am ci nit mooy liggéey moom bu liggéey accès yow mi ko xamul doo xàmmee njaga ak technicien moom day liggéey liggéey rek la gëm moom loolu moom wax dëgg yàlla dama ko ci apprécier cent pour cent kuy liggéey keppit la mën a àndal njagandur ñëw màggal Touba dégg sama voix ci RFM Mbacke mu wax ñi àndaloon ci liggéey bi ne leen kii laa soxla kii kan la ñu ne ko pourtant xale la de parce que boobu laa gën a nekk xale. Mhm. ba tey jii yaakaar naa xëy na mën naa am at yi soreegul. Mhm. xëy na saa xale nga ba léegi de ko baal ci kàddu yi. Ah, loolu effectivement loolu mooy li am. <laughs> loolu mooy li am. ci jeunes yi waaw loolu mooy li am. Mhm. ndax koo xam ne xëy na. daal mëneesu la wax lépp daal nañ nañ bàyyi ñiy déglu ci kumpa ji rek ñu mm-hmm. bañ xam <laughs> euh, fan la ustaas soll ciy at waaye daal li ma leen mën a jox comme tegtal daal mooy bépp ustaas bu nekk ci Sénégal yàlla def na yaa ma mag ustaas bu mu mën di doon donte am nga 35 ans yaa ma mag mm-hmm. du dëgg mm-hmm. mu euh, léegi nag bi jagandu dikkee Touba ne kàddu gi voix bii may dégg da da dama koo gis ci télé bi ñu lijjanti ma ñëw def fa benn tuus émission bi ma njëkk a def euh, TFM ca Màggal Touba googa 2017 benn ustaas lañ ma boole loon bu nekk ci kër gi euh, mu invité woon ma ak benn jàngkat yàlla def bi ma nuyoo ak xëy na voix bi ma indi ak jëmm bi ma yoroon. Mhm. nga xam ne xëy na daanaka taxu koo demee noonu ci wàllu mag. waaye ma dikk am kàddu gu ma indi xëy na ñëpp bàyyi ma xel ñu bëri itam ñi ma doon déglu RFM Mbàkke ne enseignement Mor mi ñu déglu kon moo nekk nii mhm. coow li ne kuru nit ñi fees dell. ñu def émission am na nu mu demee ñu jàll. ñi ñu ne ma ah kon suba da ngay ñëw suba da ngay ñëwaat suba boo xëyee dikkal dix ak ba midi nga bokk ci ñiy def plateau yi mu doon suuru màggal Touba 2017. ma ñëw ñu boole ma ak Jili Ñang sëñ Abdou Khadi Jili Ñang bu télévision Futurs Médias. wax dëgg yàlla dix ba midi mu jox ma kàddu ne ma euh, exprimer wul wane li nekk ci yow ubbil ma. moom ci li ñang ngay dérouler. may dérouler <laughs> ba midi. nga marqué sa empreinte daal waaw Ndiaga Ndour kontaan bég. wallaahi laa si mbég moo xam ne. Euh, te booba man wax dëgg yàlla col col sol sol sol bu bu xaw a kii sax da doon xaw a jafe parce que euh, bi nga jógee ci daara ci yàggul daanaka nekkagoo dëgg-dëgg ci loo xam ne di nga ci mën a téewee dara 2017 jàll 2018 ñëw mhm. ba 2019 sag màggal buñ dikkee ñu wooma ne bokk ci équipe bi la ñuy defal yitam équipe bi jógee dakaar loolu lañ may defal ñoom waa TFM ci njiitu njaganduur ñu di ma ci taxaw màggal gi ma gën a marqué nag mooy euh, deux mille mille vingt màggal Touba deux mille vingt euh, dañoo def palaato ba suuru màggal gi. Njaganduur teg ma ci palaato bi plateau TFM. waaw xam nga ban heure. Mm. treize heures mm. xam naa daal quatorze heures njaga teg ma ci palaato bi may waxtaan. Mhm. ba dix huit ñan nga fa nekkaloon. man kese. yow kese. yàlla xam na ko. émission boobu mooy émission bi gën a gudd bi ma mas def ci télé. Mhm. waaye nag ma xam ne kilifa gi kii dafa am lu muy xool. day xool ba xam moteur diesel la bu tàngee. Mhm. Eh, kii nangam ak nangam. waaw ko doy waar la. ku ku ku ku xereñ la ci wàlluk liggéey. ku mhm. am performance la. Mhm. ku mën a gistu nit la ci wàlluk liggéey. ku xam liggéeykat la. mu teg ma ci plateau 14h mën naa ni ba 18 man kese ci direct bi TFM. mais loolu oustaz bëgg naa xam nga nga taxaw ci wax ñu noo ko gérer parce que 14h ba 18h di wax ci màggal wala da nga doon cuuc fii capp fee. wala déedéet ni ma ko seeree muy dama ñëw. jël histoire sëñ bi. waaw maanaam bi sëñ bi ganee àdduna. waaw ca Mbàkke. Mhm. fa nga tàmbalee. fa laa tàmbalee fi mu jaar. Mhm. ci ak dundam ci ak ndawam. avant yoonu murit. waaw dèjà waxtaan naa ci une booba Cheikh Amadou Bamba laa doon waxtaanee amagul yoonu murit. Mhm. ma dugg ci wooteeg yoonu murit kañ la la ca xew. après parcours muridisme. ni mu jugee ni mu jugee Mbàkke Baari Jolof nu mu demee Mbàkke ni mu sanc Daaru Salaam 1886. ni mu sanc Touba 1888. ni mu demee Mbàkke Baari ca Jolof. ni mu demee ci géej gi 1895 sept ans yi mu fa def ni mu dellusiwaatee 11 novembre 1902 ni ñu ko yóbbuwaatee gànnaar 1903 nim ñibbisiwaatee ñu yóbbu ko ci yéen Jolof 1907. nim niñ ko yóbbee Jurbel 1912. ni mu wàccee liggéey 1927. sëñ Modou Moustapha doon premier xalifaam. 1927 ba 1945. sëñ Fallou doon deuxième xalif. 1945 ba 1968. sëñ Abdoulaye doon troisième xalif. 1968 ba 1989. sëñ Abdou Khadir doon euh, quatrième xalif. 1989 ba 1990. Serigne Saliou doon cinquième xalif. 1990 ba 1980 euh, ba 2007. Alaaji Baara doon sixième xalif. 2007 ba 2010. sëñ Sidi Mokhtar doon septième xalif. 2010 ba 2000 2018. Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké toog fi parcours boobu laa jël. Hmm. topp ko bu nekk nga détaillé ko wax. histoire beeg parce que nii ma la ko waxee nii. Mhm. dama ko mémoriser waaw. gis nga année année historique yi ma la jox. Mhm. at mu ci nekk la ca xew lépp ma waxtaane ko. Mhm. ba dé ba ba nu mu tuddati bi ñuy bi ñu bi bi sëñ Jili Ñang di ñëw pour ma pour war ma relever ci palaato bi booba yaakaar naa maa ngi tolloon ci sëñ Saaliw Mm-hmm. Ah, waxtaane naa dunduk sëñ bi résumé naa lépp bam mu jeex mm-hmm. ba dugg ci xalif ba toll ci sëñ Saliou mm-hmm. maam yow bu ñu yokkoon ay heure supplémentaire sax am nga loo wax même sax ba <laughs> ne woon continel ba vingt trois heures bu ma paree ci sëñ bi ak njabootam damay jël yoon wi spécial bu ma ca paree jël am mbindam spécial bu ma ca noppee jël ñi mu yar ñi mu defar spécial loolu waxtaanu ay fan la. te lu ci nekk mémoriser nañ ko ci suñu bopp. ndax émission boobu dafa maa bett. Mhm. dañ ne ma kaay nga invité quelques personnes ma ñëw commencé di dérouler ñu ne ma doxalal. Mhm. njaga ne ma doxalal ma doxal ba 18 heures appréciation yi du jugee fu ne keroog sama téléphone bi dafa xar. nit ñi naan est-ce que lii nu mu demee montage la mhm. wala. ma ne leen pourtant day euh, topp ndiggal rek moo ma ko may. Eh, kilifa gi moo ma jox ndigal li suñu borom dimbale ma ba ndigal li ma mën koo réussir. loolu 2020 la woon mooy émission ma gën a marqué. waaw ñun ñii na am seetaan nañ ko sax te xamuñ la woon. mu ngoog mu ngoog mm-hmm. mën naa am sax seetaan ngeen ko mm-hmm. eh, ba ca déwén Salek bi ñu demee loolu am. Mm-hmm. wax dëgg yàlla booba ba léegi itam may doxee noonu ak eh, rajo Futurs Médias di doxee noonu itam ak télévision Futurs Médias. parce que ci groupe Futurs Médias la ñu nekk. liggéey bi lu mu laaj pour ñu def ko mu rafetit ñun dañ koy def. Mhm. ndax loolu mooy suñu devoir mooy warteef. nii daal xam naa ci tënk moom laa la mën a résumer tuuti. waaw eh, ci sama jaar-jaar donte nag tëm naa lu bëri xëy na donte bàyyi naa lu bëri xëy na mais lenn lu nekk rek dañuy eh, wax la ca gën a déggaabul. Mhm. du dëgg. la ca gën a déggaabul. Mhm. suur bi ma Mamadou Omar Ba tooñee wala mu koñe ma. loola amul sens ma toog di ko wax. li am sens mooy kero bi ma doo Omar Ba ubbilee buntam mhm. Daouda Diouf def ci liggéey ba am solo mhm. dafa ñëw RFM Mbacke déglu ma eh, fekk dañ doon ñëw mission màggal Touba mu jàpp rajo bi ci yoon bi tombeek ajjuma ñuy ñëw muy dégluwaale bi mu egsee dafa dugg rek ne ana ki doon wax <laughs> ñu ne ko kii la mu ne kii moo doon wax daal ne kii moom yorul dimension locale mhm. kii dimension nationale la yor loolu ci làmmiñu Daawuda Juuf la njëkk gi génn. Daawuda Juuf ku baax. Daawuda Juuf ku baax la may mës a dégg ci moom yëpp. wallaahi la ku baax la. moom itam mu am taxawaay bu am solo. Mhm. émission bi ginnaaw bi ko El Hadj Assane validé Daawuda Juuf moo taxaw xar tànk tubayam ne. daf mhm. sax mën naa cee nekkali. est-ce que boobu nekkul woon directeur des. moo doon directeur des programmes. te pourtant bi may joxe mhm. émission bi xam nga lu ma wax. daanaka ma nag wax dëgg yàlla sëñ Mamour jot naa écho yu bari ñu naan sëñ Mamour na continuer émission bi. fekk booba taxaw nañ ab diir boo xam ne defuñu ko ginnaaw bi Mati Carter demee ndax doon naa ànd ak moom ci benn émission jooyu xol bi nga xam ne doon na ma invité. bi mu demee affaire bi taxaw mais Daouda Diouf wax ne nit ñi ñi ngi koy sollicité ñu waxtaan ci ak El Hadj Assane Gueye moom daal di joxe akooram ci saase parce que moom it nee na booba ñi ngi koy sollicité waaye Daouda juuf ne ma ñu bëri nag nee na njariñ yi ngay joxe boobu lañ gën a bëgg boo tax boo gisee émission yóbbalu jullit ñu dem ba daanaka mu sensi couleur doon yóbbalu bis bi mhm. te yóbbalu jullit lan mooy concept am waxtaan ci diine fiq sangu farata julli war mhm. weeru koor loolu mooy concept bi mhm. mais concept bi du toog di joxe ay njariñ nit ñi ñoom ñoo ñu sollicité ci loolu Assane Gueye Alaaji Assane Gueye Daouda Diouf muy Babacar Fall muy ma Makumba Bey ku nekk message yi jaar na ci ñoom njariñ yi sëñ Mamoor di joxe ma dem ba xam ne lii la nit ñi gën a bëgg ma gën a jeng ci wet googu loolu moo tax daanaka émission bi léegi jël ku lóoru joxe ay njariñ mu yóbbale bés bi mën naa ne daal ci tënk lii mooy sama parcours ci groupe Futurs Médias lu xew muy événement boo xam ne dafa am Touba mu di di organiser ko groupe Futurs Médias dama ciy sollicité boole ma ci ñi nga xam ne ñooy bokk ci liggéey bi euh, muy ndeysaan Cheikh Abdou Khadir Ndiaye mi ngi mi ngi dëggal mhm. mi ngi dëggal li nga xam ne moom laay moom laay wax nii parce que moom mag ñuy déglu ca Touba. Mhm. moom itam mu am ci taxawaay bu am solo euh, Cheikh Abdou Cheikh Abdou Ndiaye <laughs> damay mujj sax yéemu ci moom koo xam ne sama dara ma sa ci moom du sama dërëm du sama alal du sama dara mhm. te moom fu taxaw itteem mooy sëñ Maam Mor na amub cër muy Cheikh Abdou Ndiaye depuis boobu ba léegi te pourtant yeex na ñoo xamante de dañ daan gisante des fois ci délégation bi nga xam ne bu màggal di jub si groupe Futurs Médias moom la fa yebal Mouhamed soo Diop ne ma nañ dem dama fa daan gisante ak moom waaye duma xam kan la ba ni yàlla defee ñu dem ba xamante sama xamante ak moom yaakaar naa bu ma juumul. mi ngi jaare ci loxol DJ Ada DJ Ada benn animateur la bu nekk RFM Mbacké mu ne ma kii Cheikh du Ndiaye la xaritu Youssou sundur nangam ak nangam fekk jamono yooyu xëy na la ko jiitu jamonoy fekkee ma ca boole woon la ak yooyu mais eh, moom itam mu am taxawaay bu rafet ci ñun di ñu soutenir nag ci lu man di doon di ñu soutenir ci lu man di doon te wax dëgg yàlla loolu moo dox diggante mbokk ak mbokkam eh, maa ngi doon wax lan sax eh, bu tiwaawoon jotee mhm. dañ ma yebal maa ngi fàttali ko gàmmu tiwaawoon 2019 gàmmu Tiwaawoon 2018 wala 2019 ñaar yooyu benn la ci damay bañ a juum mais daal booba dikkaguma Dakar dak Touba lañ ma wooyee Mbàkke njaga ma ne ma dama bëgg nga bokk ci délégation bi dem Tiwaawoon ma dem Tiwaawoon def fa émission boo xam ne émission bi gën a neex ci télévision bi. 2018 mm-hmm. wala 2019. Mm-hmm. man maa ko def. Mm-hmm. ma invité woon ci ko ñuy wax Abdou Assis Kebe. Abdou Assis Kebe yaakaar naa bu ma juumul. noonu la tudd kebe daal la sant Abdou Assis la tudd yaakaar naa bu ma juumul yor naa numéro téléphone ñu defa fa émission bu neex ci buntu barabu sëñ Babacar Si nit ñi yuuxu foofa yëngu moo wax ci wàllu dialogue bi diggante sëñ Tuubaa ak Alaaji def ci waxtaan bu am solo ñëpp ndeysaan di di di apprécier bi ma génnee def naa une heure de temps mënumaa àgg ci euh, complexe Alaaji Malick bi ñu dalaloon ndax nit ñi di ma sollicité ci yoon wi mhm. di ma kar di rafet lu mhm. ñii di nuyoo ñi naan man murid laa ñi naan man mhm. tiijaan la lu nekk di rafetlu li nga xam ne def nañ ko yàlla def na booba ak léegi lépp loo xam ne woo nañ ñu ci ña nga ca waaye lépp loo xam ne woowu ñu ci nekkuñu ci te Oussa Ndiaga jàppul ni moom yow affaire Touba rek wala yoonu murid peut-être nga gën a maîtriser mm. mu envoyé la foofu ci Tivaouane xam nga wet googu. Mhm. Euh, Ndiaga Ndour visionnaire la ci wet googu. moom day gëm ne nit ki. waaw euh, bu mënee liggéeyam foo ko teg mu dem. moom gis-gis boobu la am. gis-gis boobu mu amoon ci ñun nag yaakaar naa te suñu yaakaaram. Mhm. parce que mosuñu koo gàccal fenn. du Touba du Tivaouane du Poroxaan. Mhm. du du du du du Njaasaan du benn ëttu këru diine boo xam ne toroxal nañ ko ca. yaakaar naa la tax mu di ñu teg ci palaato yi bu fa jógee moom. ay appréciation lay doon. gis nga sax euh, première màggal bi nga xam ne moom lañ ma euh, boole woon ci délégation bi foofa waa TFM boole ma ci. biñ màggalee ba ci suba ga yaakaar naa man maay ki njëkk a jot message su remerciement. bu jógee ci Ndiaga mu ne ma sa liggéey rafet na. te pourtant moo doon sama première apparition ci télé. mooy sama première feeñ télé amul benn télé bu ma njëkk a def avant TFM. TFM xam nga télé bu mag la. waaw doonul télé boo xam ne mm-hmm. xëy na. Euh, n'importe kii danañ la dékk micro wala ñu mhm. dëpp la caméra. Mhm. te première fois c'est pas évident. muy première fois ma ñëw seere ko. Mhm. bi ma génnee gars yi naan ma ban télé nga jot a def euh, ban formation nga jot a def ma ne leen pourtant day tey laa njëkk a toog ci plateau télé. bu Ramadan jotee ñu woo ma ma jóge Mbàkke ñëw bokk ci seetu Ramadan yi bu jeexee ma delluwaat 2019 nag ñu ne ma kaay toog waaw. di daal la demee. macha allah macha allah am na solo de oustaz capacité yi moom. ndeysaan euh, defe naa euh, ñi ngi fi. Mm-hmm. macha allah sa parcours bi lenn rek lay gën a jàngale. Mm-hmm. mooy liggéey rek a liggéey rek a waaw te sax am na lu ma la ci waxul. Mm-hmm. Euh, damaa tàmbulee rek RFM Mbacke. waaw mais man ba ma jàngee ba pare. xam nga kañ laa pare sama jàng. waaw 2007. 2007. décembre 2007 laa pare sama jàng. man bis bi ma njëkk a tàmbulee jàngale tàmbulee liggéey mooy bis bi Serigne saali wàcceeb liggéey. ci atum 2007. ca laa tàmbalee njàngaleem alxuraan. 2008 2009 2010 ba 2011 4 ans yëpp dama doon jàngale alxuraan. dëkk bu ñu naan Kell Gueye moo tax ma maîtriser sama Thiès. boo gisee bu may liim dëkk yi nekk Thiès. day jaaxal ñu bëri. mais dama faa nekkoon def fa 4 ans. incha kon nekkoon nga sëriñu daara. nekkoon naa ñu daara man jàngale naa 4 ans. am na ñu mokkale ci man ñu bëri fere nañu ijji ci man ñu bëri mën nañoo binde ci man. te ñi ci ëpp ay jigéen lañu. Mm-hmm. ma jàngale 4 ans. te ku ne na yombul. di nga dégg lu ne. Mhm. waaye man jàngale naa quatre ans ci ñi ëppoon ñi may jàngale ay jigéen lañu. Mhm. jàng nañ ba mokkal ba xëy jóge fa ba ma xëy jóge ci daara ji ba nekk ci leneen. Ah, wax dëgg yàlla alhamdulilah mais oustaz euh, parcours boobu tamit tëb nga ko de de sëriñu daara à rajo. waaw nga fa kiiwee. dama jóge ci daara ji fekk dama jàngale ba 2011. waaw 2011 laa jóge ci daara ji. Mhm. laa jóge ci jàngale bi daal di ñibbiwaat Mbàkke. maanaam bàyyi daal jàngale définitivement parce que booba dem naa ba ëmatuma woon xëy na yenn jot yi rajo yi dama koo ma soon a bëgg. waaw man njëkk may dem daara. Hmm. bi ma avant may am sept hmm. sama yaay moo ma wax. Hmm. ne ma da daan taqale fii rek di yéeg di takk ay antenne ak. nee na di jël ay rajo yi yàqu di ko defaraat ba muy wax. jël rajo bu yàqu fexe ba def ci micro booy wax mu ciy wax loolu yéemoon nit ñi. te loola demaguma daara. bi ma demee daara ji itam loolu rek moo nekkoon ci sama bopp man dama daan toppatoo ay Pam nga Ndiaye ay euh, Euh, euh, Abdoulaye Cissé sama xarit bi maa ngi koy nuyu. Mhm. dama ko daan toppandoo comme c' est pas possible. ak El Hadj Abdoulaye Lam. Mhm. temps wal fajri. de presse Pape Ngagne Ndiaye am na ci boo xam ne ba fii may wax ak yow. Mhm. dama koo mokkal. mooy bi nga xam ne ci la Idrissa Seck bëggoon a génn ci nguur gi. parti réew mi indi woon coow. te Macky Sall ne woon du fi amee. te Idrissa Seck ne noppi na sax ngir tudde ko bàcc baa Moussa. waaye parti réew moom day continuer. xam nga li ma la wax. Mhm. na ko Pam Ngañ daan tegalee. Mhm. yooyu damaa demoon ba mokkal ko ba man bu may def revue de presse Pam Ngañ Njaay ku ku ma gisul da ngay jàpp ne Pam gañ mooy def. Mhm. parce que boobu laa ko bëggoon. li may jàngale lépp itam maa ngi di taqale ay rajo lu ne. man dama daan jël téléphone portable bi yee ci télé. muy jàpp RTS. temps boobu di jàpp RDV. ndax ñoo fi nekkoon. téléphone portable. Hmm. boo xam ne digital la dama ko daan jël créer ci télé man yooyu dama ko daan def moo tax des fois bu ma gisee ci ci télévision bi ñuy wane benn booy bu defar lu garaaw dama naan yii man démb laa ko doon defar di créer ay oto yuy daw hmm. di am commande yooyu yëpp dama ko doon def parce que damaa bëggoon affaire technologie affaire technologie yow boo ñëwee sax ci studio bi da te kenn du la ko defal yaa koy defal sa bopp moo tax ñu bëri <laughs> biñ ma déggee ci rajo dañ ne ah bettuñu 2011 hmm. laa ñibbi ba 2012 liggéeyu ma. ma toog Mbàkke di taqale. 2012 am benn rajo bu fa ubbi bu tudd Zik FM. Mm-hmm. Zik FM mooy rajo Bogaan bi. seen première station ñu ubbi woon ko Mbàkke. Mm-hmm. Abdoulaye Lam moo doonoon directeur ba. Mm-hmm. El Hadj Abdoulaye Lam ñu woo ma ma ñëw nekk fa. 2012 ak 2013. 2013 rajo ba arrêté programme bi ñoo arrêté personnel bi yëpp. ñu dem toog seen kër. ma toog 2014 liggéeyu ba 2014 xaaj benn rajo bu tudd Diiso FM ca Touba. ginnaaw bi ñu jox ko xalif sénéral di mu Murit Addiya. waa woo wooma maa ngi nuyu au ba Basirou Amar. Mhm. mi ngi wal fajri léegi. moo ma woo ni ma ah, sëñ bi daal dañoo bëggoon nga ñëw Diiso parce que gëj nañ laa dégg. Mhm. ma dem Diiso def fa 6 mois. ci la ma RFM woo. Mhm. soo jóob woo ma ne ma ñëwal RFM soxla na la. ñëwal ñu jox la émission ma dem ñu jox ma émission 2015. nii daal. macha allah la la mais ba ma paree am njàng. mën naa ne ci weer wi laa commencé liggéey ba fii nii ma toog nii di wax ak yow muy le 16 avril 2023 booba ba léegi moom maa ngi ci liggéey bi xanaa diggante yu gàtt yi nga xam ne da xëy na dëgëroon na parce que daan na daan na daan ko <laughs> daan na compliqué nag waaw moom du si mën a ñàkk ci parcours surtout booy soog a door ndeysaan fàttali ko jamono joo xam ne mhm. benn bassin mhm. bu wert laa amoon mbasee mhm. bu verte boobu fu ma jëm ne ko yaay dem parce que menn moom laa yoroon dama ko wax moom daawul jóg ci paan gi moom ci fóot ko la doon dëkk mhm. mbase bi bu wert la woon waaye dem na ba mu yàgg mu doon bu bees mhm. ndax fóot bu bëri mhm. ndax fu ma jëm moom mooy dem fu ma dikkee fóot ko paase gaaw lem denc ndax programme man na maa bett atu moment te bu tilimee musiba am parce que moom rek moo fi nekk ñu ngi sant yàlla nag xëy na <laughs> léegi mën naa am <laughs> waaw <laughs> ah, macha allah loolu moom defe naa ku ko moo tax ñu bëri dañ lay dañ lay dégg ci rajo jàpp na yow mii daal da ngaa xëy rek ñëw fii di nangam. Mhm. fekk boo leen waxoon sa parcours ñu téye seen gémmiñ mhm. xam ne yow yàgg nga ci. waaw am na foo jaar. Ah, ok mu ngoog. lu lu mat a bàyyi xel la de defe naa tey moom dóoroon nga sa gaay sa CV. ah mu ngoog. gisoo diggante bi dem naa fi ndar jàngi woon. Mhm. dem naa fi ndar jànge woon 2000 2007. avant may jàngale ndar laa jóge ndar laa jóge ndar laa jànge deux ans. Sor Diagne Sor Dagga Pikine euh, ndar miin naa ko. parce que def naa fa deux ans. ndar tamit loolu jaaxal na ma fa de euh, parce que ndongo daar yu bëri dañuy ne. fa kilifa yu bëri sax kay moom ndar la ñuy jógee. ndar moom dëkku. leer la dëkku xam-xam la. Ah. dëkku leer la dëkku xam-xam la. jamono jooja ñi ngi Sor Diagne ma nekkoon ci kër ku ñuy wax Serigne Moustapha Guène mu bokkoon ci waa daaru nam yi maa ngi nuyu ak njabootam euh, wax dëgg yàlla ñoom ñëpp. ñu nekk fa nekkiin bu rafet ma nag sama rak sama mag bu tuddoon Serigne Cheikhouna Mbacké gànnaar muy rakku Serigne Mamour xam sa diine ñu bokk ndey ak baay ñoo fa bokkoon nekk euh, diirub li ma nekk ndar ba bi ma jógee ndar laa ñëw njaareem Serigne Bassirou Cissé moom Serigne Mor Mbaye Cissé borom daara njaareem moo ma wuutal daara ji ma njëkk a jàngalee ci dëkk bu ñu naan Kelle Gueye Serigne Bassirou Cissé moom fa yóbbu woon te fekk booba ndar laa jógee ñëw njaareem ne ko damaa bëgg fu ma jàngalee mu saytu ma ba xam ne mën naa ko mu wutal ma daara ma dem jàngale waaw macha allah <laughs> parcours bi am na solo de oustaz te ku si dégg defe naa di nga di nga si jàng lu bëri. alhamdulilah. daa mel ni liggéey rek a wóor de. ah liggéey rek a wóor man loolu laa gëm. te nee nañ liggéey aussi jaamu yàlla la. ndeysaan nag euh, Mamadou Omar Ba. Mhm. bi ma tàmbalee rajo yi metti woon na. Mm. ndax mbokk yi ñëpp dañ ñëwoon duñ ci daal. Mm. ndax xalaatuñu ko sant Mbàkke. Mm-hmm. nee nañu. Mm-hmm. nga toog ci rajo di wax. Mm-hmm. waaye mu metti woon ñu bëri bàyyi woon ma ci nag ndeysaan mu compliqué woon torop ah ñoom lu bëggoon nga def. parce que dañoo jàpp ni loolu du du sama wàll. Ah, maanaam toog rajo di wax du sama cër. Mm-hmm. ñu bëri ci samay mbokk mere woon ma ci di dem ci samay kilifa samay wayjur. Mm-hmm. te pourtant. Mm-hmm. Euh, dinaa la wax lu doy waar. xam nga rajo kan laa kañ laa ci njëkk a dugg génnaat ci. 2005. Uh-huh. ah 2005. boo booba sama baay mi ngi dund. boobu paree gu ma jàng maa ngi daara ji di jàng alxuraan ak xam-xam. sob dem dugg Lamp Fall FM booba la Lamp Fall ubbi Touba. ma dem Lamp Fall FM. di ànd ak sëñ Maamor xam sa diini di ko téel ab saagam ba ba mujj. Mm. ma far dugg ci studio bi nekk ci teg ba far ba far ma dem di wax <laughs> naka nit ñi dégg ma daw ci sëñ bi. Mm-hmm. ne sëñ sëñ sëñ Maamor de mi bi. Mm-hmm. sëñ bi woolu ma keroo wallaay metti woon na ci man lool <laughs> waaw mu ne ma jàng lañ la def loo nga nekk ci rajo yi di mbel-mbeli yow xamagoo dara te effectivement booba sama njànguma xam sax mën naa ne soreegul mm-hmm. eh, ci laa bàyyi lépp nag delluwaat ci delluwaat ci daara ji mais 2005 mm-hmm. kon loolu mooy wane ne dama dama koo yàgg bëgg maa ngi ci daara ji jóge daara ji di dem ci rajo bi te ku xam ne ne ànduloon ànduloon parce que njàngum daara dafa am lu mu laaj eh, ba ko sëñ bi yëgee rek daal di may ne ma demal jàngi te bàyyi rajo yi. man dañ ne ko fi waat tegg ci suuf nag. dem continuer jàng. ba jàng sama jàng ba noppi nag ba mu wóor ma ne pare naa ba jàngale naa ba pare ci laa ci soo dugg soog lu duggaat. waaw mais ndax ndax loolu oustaz day tekki rek ne nit boo bëggee dara. Mhm. da nga koy gëm foncé même su dee yow say mbokk dañ la siy génnee. wala da ngay waxtaan ak ñoom bañ d'accord. te pourtant am na sama mbokk yoo xam ne mënuñu woon a comprendre ñoom dañ woon ak lu man di am. mën mhm. naa ci génn ba pare. Mhm. te wax dëgg yàlla nag koo xam ne bi ngay jàng bi ngay judd gisoo ko bi ngay raam gisoo ko bi ngay jàng mosulaa fekk ca daara ja ako daal bi nga jàngee ba pare itam di wër di wutub liggéey ka jàngale déggoo ko ba tey mu dégg la ne la bàyyi ko waaw kooku nag boo amee ful la doo ko ba bàyyi lii kay jàppal lii mhm. man damaa dëgër bopp fonse ci continuer mhm. waaye nag alhamdulilah xam nga luñ ci suñu borom defal muy mboole mbokk yi nga xam ne yëpp ñoo bañoon mhm. rajo bi ñoom ñëpp mujj nañ di ma sagoo. parce que dem nañ fu ne ñu teral leen ndax lan sama dara lañu. sama nijaay lañu sama bàjjan lañu sama maam lañu wala yaay lañu wala rakk la wala mag la wala lu man di doon. ñëpp mujj di ma sagoo ndax lan sëñ Maam Mor Mbacke day ku nekk bëgg naa taxaw ne man maay liiwam wax dëgg yàlla ñu sant ci yàlla. mboolem ña bañoon ñëpp nag cent pour cent ñëpp mujj nangu ne xamewuñ ko woon nii ma ne alhamdulilah boo nekkee ci lu baax. la sëñ Touba doon wax ne ku ne ku dem ma dem ku demul ma dem nee na boo geesoo gis mbooloo ci sa ginnaaw nee na saa soo nekkee ci dëgg te mu leer la ne lii nga nekk dëgg la nee na yemaleel wéet ca ak wéttali ko ca nee na yow dem ca ba jeex ku la ca topp ak ku la ca toppul xamal na ci dëgg nga nekk te yàgg-yàgg da nga am ndam lii moo ñu may parcours bi ñu am ci média te boobu ba tey ngi sant yàlla. Mhm. des fois nag dina am ko ànd ak sëñ Mamor dana am ko àndul ak sëñ Mamor. Mhm. loolu moom mënta ñàkk waaw. mën naa profité mhm. tontu ko. sëñ Mamor wax na ci politique. wax na ci leader sàng wala àndul ak diw sàngam am na ku tëb xas ko wala mu tëb saaga ko wala mu wax ko lu ñaaw. waaye pour ma profité rek. fàttali nit ñi loola déranger wul Mamor Mbacke. ki koy xas ki koy saaga. ak ki koy tagg wala naan ko jërëjëf ñoom ñoo ñooñu képp la yemale moom lenn mooy objectif am li mu gëm li mu bëgg moom dana ko wax. du saaga kenn du wax kenn lu bon waaye li mu gëm lii li nga xam ne mooy gis-gisam te suñu borom may ko kaddu ko mën a waxe dana ko wax bu ko waxee ba noppi dañ koy saaga wala dañ koy tàccu rek ma profitoo xamal leen ne loolu moo yem ci Mame Mor Mbacke ki koy saaga ak ki koy tàccu parce que dañoo def formation daara dajce nag loo xam ne bu bis bu ñu ci waxtaanee di nga téye sa gémmiñ hmm. lu mburu dajul ci ab taal hmm. ñu former ñu ci lépp ba ñu mën a accepter lépp ba lu nit mën a wax wala lu nit mën a def jëmee ko ci suñu jëmu ji lu rafet ak lu ñaaw moo bokk yem ci ñun lii daal moo tax xëy na ñuy doon moom ba tey. te fës nañu yéene nag yokk. Mhm. waaw parce que man sama objectif nëbbuma ko. lii lii nga xam ne fii Youssou Ndour jaar ba taxawal li mu taxawal. Mhm. man damaa bëgg ëllëg ma taxawal lu ko gën a rëy. incha loolu laa gëm mhm. ah. léegi yow Oustaz yàlla dimbale nag bi nga dalee xuus ci actualité bi ba léegi est-ce que mës nga si dégg loo xam ni. Euh, nit dalay naan wala ay nit ñu ne la euh, man bu ma sañoon nga yem ci diine bi wala ci njëriñ yi bu ma sañoon doo dugg ci mbiru actualité yeeg yooyu ndax lay indi la kii est-ce que yooyu jot nga ko dund. ba tey léegi nii rek ci émission bii nii rek gis naa sànq ci commentaire bu waa ji ne bàyyil politique sëñ bi. Hmm. man politique ma. Hmm, politique oo kay. déedéet suñu gis-gis la ñuy wax ci tolluwaayu réew mi que ça soit politique que ça soit diine que ci wàllu économie. que ça ci wàllu euh, ci wàllu. Euh, nu mu tuddati ci wàllu njàng mi que ça ci wàllu santé suñu gis-gis la ñuy waxtaane ci tolluwaayu réew mi man awma parti politique politique ma mais nag am nañu sañ-sañ bi kenn ku nekk am nga sañ-sañu man ni ma amee sañ-sañu wax sama gis-gis ci nit nit itam noonu la amee sañ-sañu wax gis-gisam ci man nam ko sentiree rek noonu la koy waxee am na benn temps boo xam ne am na benn sorti bu ma defoon mu indi woon yëngu-yëngu ci réew mi man dama doon xool vidéo yi di reetaan man du ma lire commentaire xanaa RFM nii def direct maa ngi nii jàkkaarloo commentaire yi mais man du ma toog sama kër di xool commentaire yoo xam ne vidéo bu ñu def ci man mësuma lire commentaire waaye nag des fois nit dana def vidéo wax ci sëñ Mamor des fois sax ma ne waaw dafa am meneen sëñ Mamor Mbàkke mu nekk RFM man mu ma xamul. wala kii ku muy wax mu leer na ma kii li muy wax ak man li may dund c'est diamétralement opposé. Mamadou Omar Ba. may sant yàlla lenn nag mooy ba ma juddoo ba tey mësumaa tàllal sama loxo nit ngir sàkku ndimbal xam nga lu tax. Mhm. yàlla ñuy suturaal. du yëre bu ma sol du dàll bu ma sol du oto bu may dawal nit ñi nag demlante ak dikkalante moo leen gënal luñ man mante am oto bu ma mas a dawal ci àddina man maa liggéey sama ñàq dajale ba am lu ma ko jënd jënd ko mhm. du benn homme politique wala genn kilifa diine wala kilifa ak aada gu sa yëkkati oto jox ma ko amul ci rajo lañ koy waxee. Mhm. te yaakaar naa bu amoon xanaa dinaa ko rusu loo moom. waaw lu ñu am rek ñun ñoo taqaleel suñu bopp ba am lu ko mat ñu dem def ko. daayira bi nga xam ne mooy waa soppee kuréelu soppe sëñ Mamoor yi. Mhm. bi ñu waxee ma ne leen man de lenn laa leen di ñaan Diop RFM mi ngi nii toog sëñ Fallou Ndiaye mii président daayira bi mi ngi may dégg. daayira bi mi ngi soso woon RFM Mbàkke yóbbalu jullit la tuddoon. ba mu yàgg ñeneen sos beneen daayira di ko soppee sëriñ Mamor dama ne leen man de lenn laa bëgg muy dërëm buy jóge ci yéen di ñëw ci man xalaatuma ko même bu ngeen ma ko joxee damay lànk moo xam muy màggal moo xam muy ak cant ma ne leen fayloowu ma leen location fayloowu ma leen courant fayloowu ma leen ndox sama ñàq man danaa ko ci fay mhm. am na sax jalte jalte ju ma soon am beneen kuréel boo xam ne sosu woon na ba ma dénoncé woon fii ne man xawuma leen bokkuñu ci man yàlla xam na ne keroog bis ba ñuy ñëw di waxtaan si ak man dañoo indaali addiye ya ñu dajalee di ma ko jox ma ne leen ki du tegu ci sama loxo du ma ko laal ndax lii taxuma fee toog noonu lañ ko lemewaat yóbbu man noonu laay doxe li may am man li may dunde man maa koy ñàkk man maa koy liggéey nit ñi ma yaakaar ci man dara ñëw di ko sàkku la ma cay am ciw ñàkk rajo bii may liggéey la ma ciy am ciw ñàkk loola man doy na ma sëkk taxawuma ci buntu kër kenn woowuma kenn téléphone boo yeexee sax boo ma wooyee doo ma jot bu fekkee da xaar ma ñëw laaj la dooma ma sa jox ci àdduna ndax man du ma laaj kenn seetiwuma genn kilifa taxawuma ci buntu kenn wutuma benn audience ci kenn musumaa toog ak kenn ci kilifa yi ngir wut audience wala wut loo ma jox mëstaam ci rajo laay waxee ñu ngi ciy sant yàlla waaye nit nag boo ko xamul nee nañ dee koo wooye ee eh. du dëgg. waaw non jugement moom oustaz dafa dafa dafa dafa bëri ci Sénégal bëri ci pàcc yi. mënta ñàkk. nit moom mën na la gis ngay ngay kii euh, xam nga mu jugé ci yow loo xam ni peut-être yow dundoo loolu. sax fekk ñàkk xam képp. képp moo ko moo ko dugal ci loolu. segam yeneen yi ñoo doon daj lu ne. ñun ñii nit simple. wallaay waruñ ko bañ. mënta ñàkk mënta ñëw c'est obligatoire mënta ñàkk. moo tax ma ne leen mboolem yi jàpp ne dañ koy defale ñu di ko wax mm-hmm. jàpp ne metti nañu yooyu yëpp ñu neex. Mm-hmm. man ubbil naa buntu ñëpp émission bi dafa ñëw ubbeeku alhamdulilah nag mbooleem lu ma amoon RFM Mbàkke ci wàllu ubbeeku bi ma dikkee RFM Dakar surprise bi ma fekk daf maa surprendre man mooy dama fekk ñépp maase doon benn ma ñëw ñu ubbil ma buntu façon ubbi boo xam ne dama naan sax waaw man la kan en tant que man nit ki rek man maay wax man nit ki doomu aadama bi a simple ñu jox ñu cër boo xam ne la ko tàmbalee ci kaw ba ci suuf dama naan waaw man lu ma def man defuma dara man defuma dara xoola ubbite gi ñu amal oustaz Mor Thiam xoola ubbi gim ñu defal moo tax des fois mën naa sant nit ñu jàpp ne dafa am ku may xarab xam nga wax dafa metti mhm. da naan diw jërëjëf moom ku yaatu la moom ko ubbi la ñu ne ma ngay xarab diw parce que comme sant nga kii rek am na koy gaaruwaale mhm. man doxuma ci loolu. wala nga sant ñu ne am na lu mu la defal. am na lu mu la defal man oustaz Mor am tey. yàlla xam na ne bëri na cër yoo xam ne yëkkati na ko jox ma ko ci wàllu diine ji bu ko neexoon mën na koo bañ a def te RFM Mbàkke la commencé bu dikkee màggal ne ma sëñ Mamor Moustapha Ndiaye Moustapha euh, euh, Oustaz kii Moustapha bi fa nekk euh, musafaa jeng sëñ Saliou Niang doxal leen lépp ci seen loxo fuñ daje man ak moom Oustaz Mor Thiam cër ba mu waroon a am da koy jël moom jox ma ko man. mu leer ma ne cër bi moo ma ko gën a yeyoo yooyu nag bu la ko nit defalee faaw nga ne ko jërëjëf. Mhm. man noonu laay doxee man dara tënku ma Mamadou doomar Ba. daara tënku ma gis nga fii ma toog nii di présenter émission la juti RFM. ak suba ñu ne ma boo ko fi defeeti moo yem ci man man li ma gëm rek lay doxal bu ma toogee li ma bëgg a wax te gëm ko loolu laay wax waaye nag du ma wax naka sudul noonu dama koy wax avec responsabilité mhm. waaw muy loo xam ne wóor na ma ne bu ma toogoon ci kanam sëñ mun taxaa sax mën naa ko wax mu dégg man façon boobu laay liggéeyee ñu kiy ciy sant yàlla maa ngi jot. Euh, Euh, message su Abdoulaye Cissé maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant. Mhm. di rafetlu euh, moom itam cofeel gi ma am ci ñun moom dafa maa gis rek bëgg ma. Mhm. Abdoulaye Cissé te yàlla xam na ne bokk na ci ñi ma doon gën a roy. Mhm. <laughs> njëkk may dem ci rajo parce que boobu mi ngi Sud FM. waaw doon def euh, revue de presse yi. ñu ma ko doon raconté keroog macha allah Abdoulaye Cissé ñëpp di ko yéem. ma ko daan jéem a roy. kon tey bi ma dikkee ba xamante ak moom mu gis ma bëggal ma boppam. taf ma ci boppam di ma taxaw. di di ma di ma nemmeeku moom lay siise di jóg dox ay tànkam ba sama kër. mu ne ma dama laa seet si woon. nemmeeku ma yëkkati xéewalam jox ma. macha yàlla xam na ne da koy def. yàlla xam na ne Abdoulaye Cissé day jóg ñëw ba sama kër seet ma. Mhm. nemmeeku ma yëkkati xéewalam jox ma encouragé ma dem ñibbi. Mhm. loolu faaw ñu wax ko. Mhm. bëggul sax ñu wax ko. yàlla xam na ne xam naa ne bëggul ma wax ko. waaye def na ko danaa ko wax. kon Abdoulaye Cissé maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant. Euh, sëñ Abdou Lahad Mbacke ñàkk caaxaan euh, sama xarit ba bale ca Ouest Foire moom it exemple la ci Mbacke Mbacke moom day liggéey dama man mhm. damaa bëgg kuy liggéey man bëgguma koy taxawaalu bañ naa ko ba loo ma jege jege ci mbokk santal Mbacke santal nu ne bu ma gisee ne yow mii taxawaalu moo la gën a dub liggéey yàlla xam na ne sa numéro téléphone duma ko am te sa sama numéro doo ko am mhm. bëggumaa jëflante ak ci dara. Euh, kon moom sëñ Abdou moomu ab Lahad Tahir mhm. moom lañ koy tuddee mhm. moom sëriñ Tahiru moom sëriñ Fàllu mhm. euh, sama mag la sama xarit la euh, Babacar ma dem Guèye catholique xam naa foofu sax ëllëg danañ fi dugg émission yóbbalu jullit pourquoi muy émission diine l'islam ba pare catholique yi di ko dégloo noo xam ne mësuñu ko dégloo émission diine loola it sant yàlla rek parce que li ma gëm mooy boole murid tiijaan xaadir laayeen ñaseen canaba catholique jullit ñëpp maase doon benn man loolu mooy sama objectif. Mhm. te gëm naa ne dinaa ma sa atteindre suñu objectif. 100 mhm. pour cent ñu ngi koy gërëm di ko sant Cheikh du Ndiaye li ma jot ci message bëri na. waxtu baa ngi jeex. Mhm. mais daal ci tënk lii moom. Euh, profito la rek. doonutoon sax lu ñu waajal mais daf ma bett. waroon nañoo ubbi téléphone bi waroon nañoo àggale ci njariñ mais gis nga ne àdduna ndekete li nit kiy waaj. ak li yàlla di programmer. Matar Seck bu Mboora nee na bu ñu tasee. nee na defal li nga bëgg te bàyyi suñu borom ci programme am. Mhm. naa bu ma juumul noonu la ko waxee woon. Mhm. defal li nga bëgg te ñaan suñu borom. Mhm. waaw maa ngi maa ngi maa ngi jot message su kenn ci man madame Ndiaye. Euh, moom mooy at suñu bu njaganduur ca télévision Futurs Médias euh, madame Ndiaye mii day sama yaay. di sama xarit. bokk ci ñi ma taxaw bokk ci ñi may jàppale. mooy bu la gisee ubbi la xar kanamam. waxtaan ak yow encouragé la. Euh, teg la foo xam ne daf lay yéem ci yàlla soxla soo mën a am mu taxawal la ci te wax dëgg yàlla suñu jur la suñu mag la suñu xarit la ma dem Ndiaye soxna umu maa ngi jot message am nii wax dëgg yàlla euh, moom daal mënuma koo sant yëmu ca nag mm-hmm. day toog ba mu yàgg mu yëkkati àddiyaam yónnee ma mm-hmm. muy lu di doon lu di doon day toog ba mu yàgg yàggul am na parfum bu seer bu ma yor nii di ko laal des fois ma ñëw fi gaa yi di ma wokkante naan sëñ bi lu mu laal <laughs> madame Ndiaye mii ci loxoom la jógee moo ma ko jox bëggul ma wax ko leer waaye man ku may defal teraanga te bëggoo ma wax ko boo ko def dama koy def ku ma def lu bon nag boo bëggee ma wax ko boo bañee ma wax ko duma ko wax man lu baax laay wax parce que loolu moo tax ñu nekk fi wax dëgg yàlla foofa amuñu fa falanceer Paate Dia mm-hmm. bu fee moom itam bëggal ma boppam teg ma fu kawe di sonn ci man Euh, wax dëgg yàlla daal euh, dama dama am ay soppee dama am ñu ma appuyé dama am ñu ma bëgg dama am ñoo xam ne sama sama réussir jaral na leen lu ne mhm. waaye nag lépp a ngi ci loxo yàlla lu jot rek day yomb mhm. te lépp lu war a am day am mhm. ñun ñu ngi ci loxo yàlla waaye nag ñi ngi góorgóorlu di def suñu kem tolluwaayu kàttan ba liñ war a def ñu réussir ko man loolu mooy sama objectif Youssou Ndour dafa liggéey ba réussir taxawal groupe rajo bi ñëpp di déglu ci Sénégal tele bi ñëpp di seetaan ci Sénégal. Mhm. journal bi ëpp doole ci Sénégal. Mhm. Youssou Ndour taxawal loola. ma ñëw ci ab groupe am di liggéey kon Youssou Ndour war na maa mën a inspiré. Mhm. ba man may def innovation. fu ma nekk deux mille vingt trois may nekk deux mille vingt quatre na ko gën a kawe. man dama gëm concurrence. tey boo tegoon émission diine danaa fexe ba nit ñi di ma déglu moom duñ ko déglu. parce que dinaa indi man loo xam ne mooy gën a saf nit ñi. te naa ko xorom ba mu neex. Mhm. indil leen ko ci kàddu gu neexit. macha allah kay goo xam ne danañ ko mën a déglu. Mhm. te woyof. Mhm. loolu mooy dégg. ñun ci loolu la ñu nekk. oustaz euh, xam naa heure bi dafa jot waaye laataa ñuy tàggoo euh, comme que tey euh, daanaka def nga sa parcours. Ah, ci émission bi. <laughs> noonu la ko yàlla dogalee <laughs> macha allah ñu bëri defe naa ñi lay doon topp ci RFM te xamuñu woon fan nga jógee wala fan nga jaar. tey am nañ ci lumière bu leer te yàlla xam na ni lii waajaluñ ko waxtaanuñ ko sax. wallaahi dañoo dañoo daf ñoo bett. dañoo dañoo yow sax maa la toog loo <laughs> mu ngoog nga dem rek ñu ñu ñu dem ci léegi nag. dafa am benn identité remarquable boo xam ni da da nga ko am ci émission bi. Mhm. muy Kabir Sène. léegi dama dama bëggoon Matar. laalal ma laalal ñu Kabir laalal ma Kabir rek. waaw nga nga xaw ma décortiquer ko. lu tax tu tuuti rek. lu tax ak ak ak Kabir li mu fay wax ni mu doyee waar. mu ngoog ndeysaan.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 dama nekk RFM Mbacke. Mhm. di def émission yóbbalu jullit. ñi ma doon déglu. Mhm. Touba la ak Mbacke. Mhm. ku ne xam ne ne mooy capitale mouridisme. waaw fa la murid gën a bëree. ma indi Xaadim bi ñu doon njëkk a dégg mooy sama première générique. ma ne man émission yóbbalu jullit laa tuddee sama émission. Ah. émission bi man maa ko indaale RFM Mbacke. sama concept la man. ma ne sama émission yóbbalu jullit la tudd. Mhm. sëñ Touba bind na waaye keneen it bind na. Mhm. ma ne léegi damay tànn ci xasiday Seydi Hadji Malick gi. Mhm. boole ko ak yi sëñ Touba bind muy sama ñaari indicatif. yoo xam ne dama ciy boole murit ak Tidiane. te booba maa ngi Touba. bu ma neexoon ma ne murit yi rek ñoo may déglu kon waaw. mungo mu ngo parce que communication bi ñu bari noonu lañ koy defee. ma ne kon dafa am ñeneen ñu am cër naa leen jox seen cër. ma dugg benn yoon ci YouTube bind. xaw ma woon bu baax ñiy jàng ci tiijaan waaye booba jàng bii daan naa ko dégg mu neex ma mhm. ma am ku ma woo ne ko waaw mhm. ak lii ak bii mhm. Matar Samb ko amuk dégg la bii dinaa la wax histoire te lii mooy taysiir bi Seydi Hadji Malick bind waa kër sëñ Moustapha Sy mustar si diine wal mustar si ñoom ñoo koy jàng moom itam ma dugal ko ci sama émission <laughs> jërëjëf gis nga ma ñëw ci Kabir Sène bi bala may ñëw ci lii Matar indi bàyyi ko mu riim noonu ci suuf <laughs> euh, pourtant mënoon naa am xalaat bu gàtt ne comme laa nekk ak Mbacke naa concentré wu ci murid yi rek. Mhm. ma ne déedéet ñëpp ci bokk. Mhm. ma jël jaama ngi biñ doon déglu sànq. Mhm. waa kay léegi bu ma toogee RFM Mbacke. bu may commencé émission bi. Sénéri Xaadim géey bi la ñuy teg. waaye bu ma yoo rek. ñu dugal indicatif booba Majob Sila moo fa nekk Seex Taal du Diop caat mhm. ñooy techniciens ya fa nekkoon ñu bëri doon laaj pour pourquoi lu tax mhm. ma ne leen parce que yóbbalu jullit concept yóbbalu jullit la tudd mhm. yóbbalu jullit kay du yóbbalu murit kese du yóbbalu tiijaan kese du yóbbalu xaadir kese yóbbalu jullit la jullit yépp ci bokk yem ma ne bu fekkoon mën naa ko ëttu kër diine gu nekk damay teg seeni jàng waaye comme mënuma ëttu kër diine bu nekk ma teg seeni jàng ci benn émission bu boobaa doo waxtaan naa jël symbole murid laa dama ciy boole njabootu Seydi Hadji Malick ma jël indicatif bi boole ko ci 2015 damaa démarré RFM Mbacke 2015 démarré Kabir seen bii Kabir seen xaw ma ko mësuñoo wax téléphone mësuñoo gise ci àddina mais li mu jàng dafa doy waar da ciy bàkk suñu borom taw ñiit parce que day wax ne yow jaam jaam bi yaa suufe mais yàlla mooy ki kowe yow jaam bi mënoo yàlla mooy ki man yow jaam bi amoo yàlla mooy ki am yow jaam bi taloo yàlla mooy ki tal léegi nag loolu la ciy jàng tawhiid maanaam imaan wéetal suñu borom subhaanahu wa taala mu neex ma nag bi ma laajee ne waaw jaama ngi jaamu jaama ngay way boroomam ku ko jàng ci jàngkati tiijaan yi am ko ne ma koo Kabir seen la tudd ma dugg yuti tàppi Kabir seen mu génn jàng boobu ma tele téléchargé ko dem jox ko technicien bi ne ko léegi bu ma commencé émission bu ma nuyoo rek bii ngay dugal foofu la commencé ñuy doxal bañ jox ma beneen émission bu tudd yóbbalu bis bi mooy bi may def nii. Mhm. mooy am dimanche ci guddi. Mhm. ma ne générique bi total spécial euh, kii bi laay jël nu mu tuddee taysiir bi. bi mu sarsi dinay jàng. Mhm. ma ne moom laay def sama générique. am ñu ne ma waaye doo def nangam ak nangam ak nangam ma ne leen man bii laa sentir. ma jël générique boobu di ko def 2015 2016. lañ commencé yóbbalu bis bi dimanche ci guddi. ba 2019 générique boobu mu sarsi diina yi mooy taysiir bi ñu doon dégg sànq. boobu. mooy sama scénario gu yóbbalu bis bi ba ni ma ñëwee RFM Dakar maintenir ko. parce que man damaa yàgg gëm boole. Mm-hmm. moo tax yenn saa ñuy dégg ngay balancer fii di balancer. bu may nuyu damay nuyu xeetu Sénégal yëpp. Mm-hmm. damay nuyu euh, catholique yi. Mm-hmm. diine yëpp. parce que man sama objectif mooy am écoute bu yaatu. ñëpp di ma déglu. ma nuyu séeréer yi te ku may nuyu ci saw làkk laa lay nuyu. parce que damaa bëgg ñoom ñu déglu ma. am na ñoo xam ne. ndeysaan ku ma mas a wax dafa ànd ak doomam mu koy traduiral yàlla xam na ni déggul wolof mu ne ma sama yaay ji de sa émission du ko tardé xamut li ngay wax waaye day laaj lu mu wax léeg-léeg nga wax ci kaw reetaan mu ne lu mu wax ma ma traduiral ko ko da lay déglu te pourtant déggul wolof waaye dégg na nga nuyu séeréer lii dem mandim bandinkoolu léegi nag mu ne kii daal di ñu nuyu moom dama koy déglu parce que loolu mooy sama objectif mooy ku ne ma fekk la ci saw làkk nuyu la ca masan ci am message su sinwaa siin waa bu dégg ma ne wànc ak ñaxaaw fekk dafa duggoon ci taxi fii dakaar dégg ma nuyu leen mu wax taximaan bi ne ko kii lu muy wax ci ñun parce que tudd nañu siin waaye nangam yooyu parce que dama bëgg rek mu gën a neex gën a yaatu ñëpp bokk ci moo tax daal man yaatal dama dégg président Youssou Ndour mu ne sama kër gi damaa yaatal ku xatal bokkoo man nag ma ñëw indi estelu yaatal maanaam ñëpp man ci bokk man loolu mooy sama objectif dama bëgg daal ñëpp jot ci lépp baax mhm. waaw moo tax daal xëy na ah ñu ngi ciy góorgóorlu donte mënuñu mais. Mhm. yàlla bari na sutura. Mhm. am na solo oustaz yàlla na yàlla loolu di sutura. ndeysaan émission bi gën a jëm kanam gën a international li mu international. amiin parce moom wala mën naa ne sax rajo foo mënta nekk ci àdduna bi léegi mën nga ko déglu jaarale ko ci internet beeg fépp. dëgg la donc euh, bu Sénégal foogee ni ñoom kese ñoo lay déglu ñoom kese ñooy profité ci seen njëriñ. defe naa mhm. ñu ngi lëreew. dëgg la ndaxte émission moom dafa international. may jot ci ay appel ci international bi mhm. daanaka sax moo xaw ëpp li may jot Sénégal mhm. Mhm. rawatina Gambie gii fu ma jote ñetti appeli Sénégal danaa jot benn appelu gambi am na ñoo xam ne sax daanaka nit a leen di wooteel di leen waxal ñu di ma wax parce que dégguñu wolof bu baax li ñuy wax duñ déggante mais dañuy débrouiller pour déglu sëñ Mamor waa Gambie waa États-Unis waa Italie Italie dama faa bëri ay soppe ñoom ñi ngi revendiquer toujours sëñ Mamor dañoo bëgg nga ñëw fi am na ñoo xam ne dégguñu wolof mais dañuy déglu am na benn ivoirien boo xam ne masina faa ñëw seet si ma. Mhm. ànd ak benn xaritam boo xam ne benn entreprise la ñu yor fii Dakar. ivoirien bi nee na damay déglu te pourtant déggul wolof de. Mhm. mais bi ma laajee waa ji ne ko moom léegi lu may dégloo. Mhm. mu ne ma parce que nee na voix bi ngay waxee da koo neex moom. xamut li ngay wax mais nee na day déglu voix bi mel na kuy fecc saar yooyu daal surtout booy tàmbali. Euh, ma ne ko waaw émission bi ku nekk ak li la ciy daaneel. <laughs> macha allah <laughs> wallaay ndeysaan est-ce que duñ fi jaare yëkkati jotaay mën nañ koo foofu yëkkati parce que buñ doon wax bu bët set it yaakaar naa du jeex mhm. ndeysaan macha allah jërëjëf euh, Ibrahima Jàmme euh, bi nekk fii ci kër gi mhm. li ma jot ci ay message tey jii <laughs> mu bàyyi ko fii ci kër gi bëri na mhm. ñoom Ablaye Cissé ñoom Ibrahima Jàmme euh, ñoom ñëpp maa ngi jot seen seeni message bu ma limee sax damay juum Euh, dama dul matal ñoom ñëpp ñu ngi apprécier liggéey bi. Mhm. Euh, jàmme moom sama sama sama sama sama sama péete la. waaw jàmme moom bi mu nekkee Kaolack. Mhm. la commencé di ma di ma di ma fonk di ma mhm. déglu. ay message am di yegg si ci man. wax dëgg yàlla mu di ci mu di ci bég. apprécier na trop sa xalaat yi ngay am ci actualité. ndeysaan da koy bu baax. amiin wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. message yi laay liir ba tërumaa kii sax bëri gu mu bëri. waa Facebook ñu ngi laa Diop RFM. waa Facebook ñu ngi laaj Diop RFM. Mm-hmm. waa RFM moom. moom mën naa ne euh, figure kase la. Mm-hmm. maanaam xar kanam la bu nëbb mm-hmm. boo xam ne yéen a ngi dégg turam ci émission bi soppee la nag. soppe la xarit la ci kuréelu soppe sëñ Mamour mais avant ci génération Futurs Médias la bokk. moom dafa yàgg servir groupe Futurs Médias. ci génération Futurs Médias la bokkoon. kaay comme waa Facebook ñu ngi lay laaj moom ci génération Futurs Médias la bokkoon ba kuréelu soppee sëriñ Maam Mor yi taxaw. mu ñëw bokk ci indi ci tous bu am solo. chaque émission Diop dafay ñëw toog. waaw waaw chaque émission dafay ñëw toog assister émission bi waaye bu ñu jàpp ne day ñëw toog nii ne nii pour pour pour déglu demaat de. émission bi da koy enregistré di ko def ay parti di ko dagg. Mhm. di ko tas ci internet bi. Mhm. moom loolu mooy fonction am. Mhm. kon yéen waa Facebook yéen ñi doon laaj Diop Diop a ngi nii. kii mooy Diop RFM. macha allah kilifa la. li ma gën a neex ci moom it mooy liggéeykat la dafa am métier boppam boo xam ne ca lay xëy di ci gont bu liggéeyul ñëw ànd ak ñun émission bi waaye bu jugee fii ci liggéeyam na jëm ndax man ci liggéey laa nekk ku nekk ak man it liggéey laa lay sant te wax dëgg yàlla moom ci laa ko fekk kon jóoba ngoog gis ngeen ko <laughs> Diop yàlla na ko yàlla sàmm te doo li ko wér. macha allah ay ca kon ginnaaw Diop ba. Mhm. <laughs> ba kon nu ñu def. waaw ñu tàggatoo rek xam naa dinañ fi tasewaat aljuma incha allah. <laughs> bu ci yàlla andee bu dul bu dul korité kon. aljuma boo moytu mooy doon bisu korité de. <laughs> waaw aljuma moom defe naa séeréer yi dinañ lekk lu ñu bëgg soos. wallahi ndeysaan. ñoom moom capp di soos jë jaral na leen lu ne. jaral na leen lu ne. Mm-hmm. waaye incha allah buñ ca yeggeet. RFM mm-hmm. dina ci def liggéey bu am solo. ni nga xam ne rek noonu lañ ko daan baaxoo di amee. Mm-hmm. Eh, ci njiitul coordination eh, directeur eh, wala boog chef de desk. réalisé bu rajo Futurs Médias mu di Oustaz ci am mboolem julli yi xutba yi ci Sénégal yëpp danañu ko indi toog waxtaan Oustaz Ndiaga jaar fi Oustaz Moustapha Ndiaye jaar fi Oustaz Ousseynou Touré jaar fi man ma jaar fi Oustaz Mor moom jaar fi ba nga xam ne dara du leen rëcc. lépp loo xam ne jëm na ci wàllu tabaski gi mhm. euh, korite gi bokk <laughs> plutôt ngeen baal ma sama xel maa ngi ca xar ya mhm. euh, loolu daal mi ngi ci kanam incha allah madame Guèye li ma yónnee ci message plus de euh, vingt messages mhm. yoo xam ne madame Guèye catholique la maa ngi jot ay message am yoo xam ne du jeex maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant di sant ñëpp daal jërëjëf kon mu bàyyi la nga tàggoo jërëjëf jërëjëf di sant auditeurs yu RFM yëpp vraiment amuñ seen fay muy ci rajo bi muy ci site internet bi macha allah. yóbbalu émission yóbbalu jullit daal ci kaw ci kanam. dëgg la <laughs> eh, jërëjëf. ñu ngi lay gërëm di la sant li ci gën a neex muy maa ngi jot ay message euh, fépp ci àddina ñu ne ñëpp rajo Futurs Médias la ñuy déglu euh, kon fi mu toll audience bi mi ngi ci RFM euh, dafa yéeg dafa aju nit ñaa ngi koy siifut di ko bàyyi xel boo xoolee vie yi dafa aju parce que li ñuy wax intéressé na leen bëggoon nañoo xam kii di wax kan la profité na ñëw tey jii xamal leen kii wax kan la ay ca kon ñu dig leen daje rek ba ajuma bi dellu si ak jàmm Eh, ci seen émission yóbbalu jullit Serigne Mamor Mbacke kennal Serigne Touba ci woon mikoro bi eh, Makhtar Samb ci woon xarale gi en même temps ci woon digital bi ñuy gërëm bu baax ñoom Maysa ak eh, mboolem ñi nga xam ne yëpp ñoo jàpp ci liggéey bi Diop RFM moom itam nekkoon ci liggéey bi Arona Ndour ci woon logistique bi Mamadou Omar Ba ci woon waxtaan bi ak gi moom itam ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant ci kon yéen mbokk yi ci woon déglu bi ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal ay eh, ca kon wasalaamu aleykum wa taala wa barakaatu ñu fanaan a jàmm jërë ngeen jëf ci déglu bi nabi wali lay sayara dahra waatil mufannidun رسولا كريما مثله ليس يولد لقد مات من مسن المخافى محمدا يا كريم